asalaamaaleykum man day Soukeye gay magi nuyu askanu Thiès rawatina askanu DVF bama dëkk responsable politique APR n'ek également membre du comité directoire de la commune S, n'ek vice président départemental de la commission féminine Magi sante yalla di wax alhamdoulillah rabbil alamin di sante suñu borom je remercier Askanou Thiès rawatina encore Askanou DVF centre de vote yu ñu gagné Thiès rawatina DVF maa ngi gërëm DVF di gërëm vraiment Niamadon Diapole, doon jàppale di gërëm sama waa koñ comme ni ko olof di waxee atte yàlla gën bu doomu sur le plan local mais sur le plan national tendance à à voir yalla atte le président de la république monsieur le président Macky Sall ak ñinga xamantene ñoo Nous Tout ko wax lu nekk waye ben att gënul lu suñu borom te ko remporter sur le plan national pour revenir au tamit au niveau local tay ndam li am DVF ndam lo xamantene tay dama si jiital di gërëm nak suñu le directeur général de la SAR parce que dafa am lu olof wax olof nee na wax sa mbaaxu waaye du wàññi sa baax dara may wax jaajëf DG di wax jaajëf Siré Dia parce que tey ren yàlla dafa dogal depuis 2000 maa musa doon mandataire mandataire centre de vote Léopold Sédar Senghor ñu gën koo xamee sa turu casino mais depuis 2000 ba léegi gulet yii résultat ñu am ko buñ ko amee c'est grâce à Siré Dia ñu koy gërëm di ko sant mu doon nag kilifa ah doon responsable ma sëkk coordonnateur dafa doon responsable ma comité électoral amul coow à l'unanimité ñu ñëpp ñu noonu ko jiital ko mu def taxawaayam def def warugalam galam kon dama naan gàcce ngaalaama DVF gàcce ngaalaama un gàcce entourage bi nga xamante ne équipe ba nga xamante ñoo ànd ak moom jàppale ci campagne bi DG effort pour dimbali le parti ménagé wul benn effort pour dimbali ses alliés DG am na taxawaayu kilifa président dafa am lu mu waxoon yàgg lancé boobu message nee na ouvrez vos portes ouvrez vos téléphones jàppale leen askan bi si la tey li mu am tey social moo ko ko may lu mu am tey social moo ko ko may DVF bunt bu ñu taxaw képp ko wax yërmande bi mu am si askan bi la ñuy wax te def naa ne nit ñi kenn sexalu leen lem kenn sexalu leen suukar taxaw fii ne kilifa laa parce que lu mu mën am nañu ko ko am nañu ko ëpp moyen Cees te defuñu ko parce que Olof Njaay dafa wax ne nit bu nu ne ndax diw baax na danaa laaj leen da mbokk yee ko ba pare te tey témoignage bi ñu ko seedeel durant toute la campagne mu jël temps porte à porte këroo kër si la dina